c'est tellement de questions à lui je sais que li ngeen ko bëgg a laaj bëri na internet tam li ñu ko bëgg a laaj bëri na mais euh, dama ko bëgg a laaj yu bëri daal parce que yëfi activisme dafa xew lool lu ñuy jàng loolu lu dul jàng lu ko jóg nekk ko ou pas j'ai vraiment envie de savoir quoi je veux comprendre ay mbubb la mais lu lay noo bëgg ñu woowee la am na lu man mënatuma wax sama bopp jeune. Hmm. peut-être que jeune pas parce que am naa 40 ans révolu hmm. loolu donc léegi ñun ay jeune pas lañu. Hmm. léegi xëy na ñoom Seydou Nourou ñoom ñooy xale yi. ñoom <laughs> donc voilà activisme activisme ñun bu ñuy tàmbali yanamaat utuñu étiquette bu ñu tuddee suñu bopp. journalisme nag mooy li ma jàng. parce que dama dem institut supérieur des sciences de l'information de la communication ici je pense que daje nañu fa. Euh, ma jàng fa pendant cinq ans. communication ak journalisme loolu suma métier la. tey jii bu mu demoon ba yëpp jeex loolu laay dem collecte traiter diffuser de l'info. Mhm. ci laay daw ñaqee sama doole. Mhm. ak communication loolu mooy suma métier yàlla am na lu ma ci may ndax tarbiwu naa ko jàng naa ko ma ko waree jàng mhm. exercer naa ko aussi fa ma ko war a exercer ci jamonoom. Euh, def naa ci lu góor góorgóorlu naa ci ci hebdomadaire euh, surtout bu boobu la ubbi woon la Gazette nekkoon investigation enquête yu mucc ayib ci jamono 2010 2008 2009 ba 2012 maa ngi fa woon yooyu yëpp euh, sama métier la activisme bi ñuy créer Y'en a marre nit ñi ñoo ñu tuddee activiste mais ñun lan moo ñu yemboon dañu jóg rek ne courant bi di coupé ëpp na surtout bu ñu demee ba ay xale di ci dee ci crèche yi ndaxte jamono jooju euh, ci ci ci couve xam ni ñu koy woowee. couveuse yi sax duñ doon am duñ doon am kii. dañuy opéré nit bi ci biir courant coupé groupe yi sonn. doxatuñu jamono jooju nit ñi dañ koy fàtte 2010 2011 dañ fi dund ci coupure ay 20 heures de coupure par jour. Mm-hmm. délestage délestage lañ ko doon wooyee kenn mënu ko woon nangu. Mm-hmm. Euh, loolu moo nekkoon déclic bi mais aussi nekkoon. bëtu yërmande bu ñu doon xool suñu yaay ñoom meer na bu ñu ñu dëkk ak doon gis li ñu doon sonnee ci ñàkk courant bi ndox mi mm-hmm. Euh, loolu la ñu bëggoon nag ne ah il est désormais temps ñu seetlu woon ci jamono jooju aussi nit ñu dañ koy fàtte toujours que y avait que les imams de Guédiawaye ñoo doon jug di ko xeex. Mhm. te imaamu Guédiawaye yooyu ñun dañ on s'était dit que pourquoi ay personnes du troisième âge di ñu xeexal ñun ay xale yu ndaw ci biir réew mi. Mhm. donc ñu jógee tuddee ko Y'en a mu nekkoon Y'en a marre du laxisme Y'en a marre du laisser aller. Y'en a nekk ay ndaw ci dëkk bi croiser la suñuy bras di naan ataaya alors que dëkk bi doxul mais ça ne va pas Y'en ci am benn président boo xam ne mu ngi doon cristalliser frustration yëpp ba pare mu ëlbatiku bu uti beneen mandat loolu ñu nañu jug rek dem ci biti après journalistes yi suñu mbokk yooyu ñoo ne ok activisme lii mooy activisme mu ñu xewal ko waaye du tur bu ñu tuddee suñu bopp nit ñoo ñu ko désigner politicien pour man lan lay tekki tey jii bu fekkee dañu ne li ma jàppee na man bokk laay woowee politique mu nga xam ne bokk na ci tax ngeen invité ma fii muy jàmmi kaw la mouvement boobu bu dee politique c'est gérer les affaires de la cité dañ jàpp ne dafa nekk obligation pour chaque te ba ngay politique nag bay seewu tànk pour man lan mooy politique fi nga dëkk na naat bu dee ndaw nga nga bindu ci liste électorale yi pour man ñaar yooyu muy résumé politique d'ailleurs moo tax lu ñu defee jàmmi kaw la lu ñu njëkk lancé mooy bindu ak naatal naatal ndaxte sa dëkk fa nga dëkk yow yaa ko war a naatal mairie moyen la ci état moyen la ci mais moyen bu njëkk mooy population bi nga xam ne ñu ñoo dëkk ci gox bi da moom habitude di wax ne nguur gu njëkk ci ñun suñu première nguur suñu premier gouvernement mooy mairie bi xam nga tur yi tur yi mooy xaw a réeral nit ñi parce que mairie à la limite ci benn wolof saalum saalum euh, dina koy dégg bañ am nañ ko ko melalal mais ci dëgg-dëgg gisu ci boppam mais nguur gi nga xam ne moom lañu moom lañ fa teg sa premier gouvernement. maanaam nguur gi njëkk di nga jot pour war ko fexe ba mu ñoŋ pour que li ñëpp bokk nit ñi mun ci jot mooy sa collectivité local moo xam village la moo xam ne munti di nekk. loolu nag naka lañ ko mën a fexee ba mu baax ci suñu saalum gële. loolu moo waral ñun ñu ne bu dee loolu la ñuy wooyee politique ñu ngi ci. donc loolu mooy ne assumer nañu étiquette boobu bu fekkee dañ ne loolu la ñuy wooyee politicien en tout cas suñu dégg-dégg danañu ba gérer les affaires de la ñëpp bokk parce que. lan mooy les effets de la cité mooy bokk gi. Mhm. man dama ne woon sax mairie xëy na dañu waroon soppi tour bi. Mhm. di ko tuddee bokk gi. Mhm. comme ça nit ñi xam ne en mairie mooy li ñëpp am fan lañ koy teg. ci niveau bu ndaw. pour que ñu mun ko séddale ba ñëpp jot ci. xale yi war a jàng jàng. école yi gën a baax parce que école classe su cent vingt classe cent vingt personnes war nañ ko mën a xoolaat fexe ba administration municipale bi ñëpp mun ci jot waaye nag loolu balaa ñuy yegg si tax ci nguur muy nguur gu njëkk gi di mairie bi dafa war a fekk nag suñu buntu kër yi ñu defar ko. Mhm. suñu buntu kër yi nan lañ koy defaree moo tax ñu ne naatal bu dee da nga mën a jëmbat garab pour que Kaolack Kaolack wàññi tàngaay bi nga jëmbat garab. bu fekkee da nga war a set setal nga set setal bu fekkee da nga war a sëkk nga sëkk bu fekkee fu ndox bi di taala ëpp fa doole ñu dajaloo fa xool nu ñu ko waxee ba mu baax et cetera et cetera maanaam dañu bëgg ñun bu dee loolu la ñuy woyee politique politique boobu la bëgg a def mhm. fexe ba kenn ku ci nekk la nga mën ci sa gox nga def ko parce que askan popul citoyen bu nekk pour man da ñaari yi ko war a sàmm qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux dire lan laa mën a wax ak lan laa mën a def li nga mën a def mooy nga fexe ba sa buntu kër nga tàmbali ko ak ngeen dajaloo yéen waa quartier ba ba mu baax lan nga mën a wax mooy nga fexe ba am carte électeur am carte d'identité am carte électeur sa jour wu vote jour wu wote bu jotee jarul xëccoo jarul xiiroo jarul ŋaayoo nga dem nga wote ndax wa diir ce que tu penses mooy nga vote boo ko deful nag sa kaasak sa jàmbatak ak sa naqari xol yeeg yooyu yëpp presque du am benn njëriñ parce que fañ ko waroon waxee waxe woo ko fa moo tax ñu ne naatal ak bindu voilà